transhumance bi am depuis bi ñu commencé campagne électorale bi pour élection législative bi mosul am ñi jóge ci nguuru Macky Sall dem ci nguuru ñoom Ousmane Sonko lu xamante ni ne nit mënu ko woon xalaat ñoom bu ñu accéder au pouvoir xool leen ñi dem amul lu ñu leen yàqul bi ñu nekkee ci nguuru Macky amul lu lañ yekkul tey ñooñu ñooy bàbb di dem di ànd ak waa Pastef sénégalais yi ana ngor sénégalais yi ana ana fulla ana jom ana valeur lii ñaaw na trop trop trop trop ma bëgg nag sénégalais bu nekk ca fa nga ne na xool tey ñi nga xamante nii ne ñoom ñooy jóge di ànd ak Pastef Pastef nag xawma ñan mais lii nga xamante ni dañ ko mus di ñaawlu ci nguur yëpp franchement waroon nañ jóge transhumant si ñeneen mais pas si yéen Sénégalais bu nekk nag libre nga ci kàddu yi nga xamante ne wax naa ko nga xalaat ci tey xeetu transhumance bu daan am yéen ñëpp xam ngeen après réew mujjee.